Euh, <coughs> asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk Baxdaad mbokk Thiès mbokk Sénégal man euh, Pape Bassir Diop maire commune Thiès Est moo ñëwoon tey di ziar si Serigne Khadim Lo Gaydel ci wàccaayu mawlud bi doon euh, nemiku si liggéey yi fu mu toll ànd nag délégation commune Thiès Est yëpp ñëwoon fii tey doon nañ ko daan defee rek. di santaat yàlla bu baax bi mu mayee ñu fekkee waat ba pare tal ko man fi ñëw kon ñu ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf. waaw sama taxawaay fii mooy benn euh, ay jullit lañu benn di gëm euh, Muhammad sallallahu alayhi wa muy bis boo xamante ni di ko màggal euh, juddoom kon bu fekkente ni at mi delsiwaat na. sunu taxawaay yàlla defit ñu nekk euh, maire commune bi dafay jaadu li ci wàcc doomu aadama di fi ñëw ñu dénk commune bi war nañ ñu ñëw xool si euh, wàccaay wi fu mu toll doon xool wàllu éclairage bi ak wàllu assainissement bi ak euh, wàllu li nga xamante ni lépp la ñu demandé woon ci luy jagal bis bi rek parce que fu ay milliers doomu aadama di daje war nañoo ñëw xool si liggéey boobu fu mu toll ndax dafa nekk ñun ñooy administré commune bi ñooy premier magistrat de la commune kon bu ñu jiitee ñooñu war nañu ñëw xool liggéey boobu ñu doon def fu mu toll ndax defe naa ni soreetul suba la te it euh, moo waral ñu ànd nag équipe municipale bi depuis bërki démb di leen accompagner pour euh, di xool si travaux yi fi mu toll di sant ñi nga xamante nag ñoo fi ñu nekk doon ko taxawu aussi itam njugo bi nga xamante ni mooy yore comité d'organisation ak mbokk taalibe yi fi nekk yëpp di sant itam également commune Thiès Est euh, nga xamante ni lépp loo xamante ni waxan nañ ko ci expert besoin yàlla def na jéem nañ ci def ci sunu kemtalaay kartan loolu lañ doon ñëw di ziar ci sëñ bi di ko laaj fu mu toll sant nañu yàlla nag bi nga xamante ni sëñ bi moom ci boppam feeñal na mbégteem sant nu ñaanal nu ci li nga xamante ni moom la ñu taxawee tey ci bis bi te it defe naa ni loolu ñun euh, taalibe gi rek lañ ci jiital ak euh, jullit gi ñu doon di nekk taalibe sëñ Touba moo waral sunu taxawaay fii ñun boobu nag ci commune Thiès Est moom euh, moo fi organisé gàmm bi fii ci Baxdaat ñu fas yéene nag bu ñu jógee fii jàll nag ci ñeneen. ziare la. sa diggante ak Serigne Khadim Lo Gaydel dañ ci gis benn mbégte bu mu am ci yow. Mhm. loolu nan nan ngeen ci mën a wax. waaw defe naa ni bu ngeen dégloo ci bi muy wax dinu ñaanal di seede ci ñun dadul tey nekkuma ba nekk maire ma ñëw fi defe naa ni wax na bi mu nekk tout tànk tànk di jàng eh, ni ñu nekkoon maa ngi moom ci sama kër ak yeneen yoo xamante ni dañ fa daan ñëw eh, loolu nekk kóllëre gu yàgg man may nekk taalibe itam di nekk alalu sëñ ma sàmba sëñ ma Masamba di sëñ Xaadim Lo Gaydel donc bu ma nekkee alalam moom defe naa ni pour mu ñëw utiliser alalam defe naa ni loolu la doon wan nit ñi ni nekku ba ma nekk maire ñëw fi nekku ba ma nekk tey li ma doon séq ak moom kon donc dama ñëw ngir lan lu yàgg loo nga xamante ni bi ma demee ba soxla sax maire fii laa dugg moo wax na leen ko moom laa tàllal samay loxo mu ñaanal ma ni ma am nga li nga wut ba pare. kon defe naa ni loolu euh, lu yàgg la loo xam xamante ni lu dëggu la wax na ko ngeen dégg. wax naa ko ci bâche bi ay yooni yoon. kon donc loolu sama digganteek moom mbégte boobu nga wax ak li mu feeñal relation yi day nekk loolu moo tax li ma naan lu dëgg rek lu yàgg dëgg la te suñu diggante ak moom it euh, yéen ñi fekke chaque ñu ànd di ñëw euh, ak fayda ji ak nungoo jaamu yàlla gi defe naa Euh, man ko koppiwaat nag waaye nag doo ko ëpp foofu fële. dernière question monsieur le maire ñu dégg ci président Idriss Seck mel ni yow yaa ko fi teewal tey jii tamit parce que ñëw nga teewal commune Thiès également mën nañ ni parti réew mi yow la yow yaa leen teewal. li naa ko ko ci biir euh, néeg bi jottali ko nuyoo Idrissa frère am parce que digganteem ak euh, sëñ Xaadim Lo xam naa ko yàgg na lool. donc ba amoon na yéene tey def visite bii maa moom ñoo ko war na ànd mais xañ na empêchement la am au à la dernière minute mais lu mu décidé woon la ànd ko ak man ñëw def si visite bi euh, dem ci yeneen kër diine aussi boole ci parce que daf ko jagleeloon tey waa Thiès aman yéene euh, def ko seeti kilifa diine yi fi nekk yëpp ay sëñ Saliou Touré représentant des xalif euh, des mourides dem seeti Baye Fall yi seeti sëñ euh, Thierno euh, Lamine Sall ak waa sëñ euh, waa kër Baro Njegen ñooñu ñëpp dafa amoon yéene dem ci ñoom ziar leen comme ni mu ko defee bi mu jógee Tiwaawan mais xañ na à la dernière minute la am moo tax sax ñu war ñu xaw a guddee tuuti am tuuti retard mais moo tax nag comme ñun ñoo fi nekk nag en tant que maire ànd ak délégation commune bi yëpp dafa naa ni moo waral bu ñu teewee indil ko nuyoom indil ko ziaraam dellu di ko di tàllal suñuy loxo di sàkku ay allahuma euh, sëriñ soos yëpp ñu ñaanal ñu donc defe naa ni ay ndawam la ñu war a doon te war nañoo mat aussi ay ndawam loolu mooy suñu taxawaay bi tey di wax ni daal ñu ngi sant ñëpp parce que fii ku fi ñëw rek ñun nga fi ñëwal parce que nag euh, ñun taalibe lañ fi ba pare nekk maire bi kon ñun ñoo war a tatagal gan ñi dalal leen yaatal leen di ñaanal leen yàlla nag ku fi ñëw ku nekk rek lépp loo fi indi ci soxla yàlla ko yàlla faj di wax di naan ni ñu ñëwee ci jàmm ak salaam yal nañu yàlla def ñoom ñëpp ñu delluwaat ci jàmm ak salaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa waaw. problème bi am Gambie defe naa ni euh, problème mu àdduna bépp ñoo war a bokk xalaat ci parce que nag mënuñoo dem ay élection nga organiser ay élection dem yàlla def li ñuy wax ñu ni raw gàddu la ba doon benn point sax nga jiitoo moom raw nga defe naa ni ak euh, ni mu résultat yi gën bàyyi xañ na xam na ni situation bi moo ko obligé mu ànd ak ngorom am courage am ni day yem ci benn manda jéem a defi leneen et puis c'est normal loolu la ñu war a jàng parce que tubaab yi gënuñu nu gënuñu nu benn yoon ñun ñu nekk ay doomu aadama nekk ay nit comme ñoom ay intellectuel xam lu bëree bëri waruñu nangu ñu ni tout le temps ñu ni téléguidé parce que Yaya Jammeh li mu def nawoon nañ ko mais mi ngi bëgg a yàq donc dañ koy demander nag vraiment mu delloosiwaat xelam xam ni nguur gu du yàlla day jeex te nangu woon na ba li ko nit ñi euh, xawoon na meree dem na ba lu bari mu récupéraat ko ci naw ko ci courage bi mu am ba félicité Baro donc loolu la ñuy wax donc nag Sénégal itam mooy li ñu wax rek le ministre des affaires étrangères li mu gën a def comme déclaration parce que moom itam bu jógee di menacer Sénégal mhm. mais yoon la tam Sénégal jóg taxaw seetlu ci loolu nag xalaat ban position lañ ci war a taxaw mhm. moo tax ma xam ni nag euh, le monde entier mhm. ñu bàyyi xel ci problème mu Yaya Jammeh jërëjëf monsieur le maire